jërëjëf sëñ Moutalla Saliou jërëjëf sëñ Moutalla Saliou jërëjëf sëñ Moutalla Saliou maa ngi sant bu baax di nuyu ñëpp di leen ziar yéen ñi waaw li ma jëf ci màggal gi nag mooy li ma wax man moom ab taalibe rek laa waruma jëf di wax liggéey rek jëf rek moo ma war lépp lu war ñu waroon wax yaakaar naa ne sama waa ji ma wax na ko kon moom ñun lii saa ñu ko jëfee rek fàtte nañ ko li ci sunu kanam mooy ñu dem lépp luñ jëf rek nii nii fàtte nañ ni sax indi nañ fi lii. ñu ngi jëf di préparer màggalu déwén ñun sëriñ bi rek moo ñu ñor lépp lu ñu am sëriñ bi moo ñu ko gënal kon ci li nga xam ne liy liggéeyal sëñ bi rek ci loolu lañu nekk wasalaam maa ngi jégalu ñëpp ci kàddu waaw xam nga weddi gis bokku ci damay ànd ak sëñ bi mënuma woon lii may ànd ak sëñ bi damay ñëw addee rek bu ndaw laay tàmbalee kon su ma tey demee bay mën lii di ko def kon yaakaar naa ne amul tànk ginnaaw Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek laa am nee na loo ma jëfal ma fulal la ko te ñun xam nañ ci dara biñ koy def ba léegi yokkute rek lañ ci gis moo tax ñun suñ sañoon dañuy yàkkamte màggal di ñëw pour ñu mën di jëf parce que xam nañ ne ci màggal lañ nit ñiy defaroo sëñ bi ci màggal gi lay defaree jaam ñi moo tax ñun dañuy yàkkamti màggal. waaw xam nga mooy li may wax xam nga ba may ànd ak sëñ bi ñëpp xam nañ man sëñ bi li mu def ci man xam naa ko yokkute rek la ak ngeneel la def ci man moo tax ku dama ni la ba may tàmbali lii mënuma ko kon yaakaar naa ne tey ku gis lii xam ne Sadio ba mu nekkee ba mu buggee kër sëñ saaliw di sëñ Moutala Saliou yaakaar naa ne yokkute rek laa ci am samay mbokk xam nañ ko samay am du jàmm xam nañ moo tax aw ma lu may wax maa ngi sant sama sëriñ di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba li nga xam ne nii moom laa yéene ci kër sëñ mu talaa saaliw suñu borom defal ma ko waaw kay ñu ngi siyaare bu baax di sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaaram ja di sant sëriñ Saliou mi nga xam ni mooy way jur sëñ Moutala Saliou mii nga xam ni moom lañ teewal tey. ñu ànd ak Sadio Ndiaye muy jàmbaari sëñ Mourtala Saliou fas yéenewu la doon dara lu du taalibe sëñ Touba ndakaaru soppiwu ko Europe soppiwu ko fenn soppiwu ko taalibe rek la bëgg doon ndax sëriñ tubaa ba nee ko lu lay jariñ luy jariñ say ñooñ dañuy am ak taalibe as gor ngi nii ab taalibe ngi nii ku baaxa ngi nii ku bëgg sëriñam a ngi nii ndax jëf ji tuutiwul te dañu ni teraanga bët waaye ñun murit dafa am lu ñu baaxoo Seex Ibra jàngal nu ko dee su jëf sa kër di ko wax da moom daa ànd ak ñu ko waxal Sadio ànd naag yaayam ànd ak soxnaam ànd ak xaritam ànd ak wëllëreem ànd ak ñi doon liggéeyal université ñoom ñëpp ñi ngi fi di dundal màggal gi bisub tey nag yàgg na koo def at yu bari di jël alalam di ñëw ci màggal gi di ko jëfal sëriñam ko gis teraanga yi xam ni ndawul ndox a ngi fi du fi jeex kanet mi ngi fi du fi jeex fruit mu ngi fi du fi jeex valise sax da koo indil sëriñ bi du fi jeex kon loola ak bëggam sëriñ Tuubaa ak bëggam sëriñam ak jëfal ko ci màggal gi moo waral mu di ko def sëriñ bi gërëm na ko ñaanal ko moo ki bokkam seede naa ci lu bari ndax nee naa la defu ko ren rek at yu bari lu mu am màggal gi lay waaj bu delloo dakaar day waaj màggal gi ngir jëf ci màggal gi ndax Cheikh Ibra nee woon na yamal xiyaam kat kenn du fay wax di bàyyi jëf kon moom day jëfal sëriñ bi te lum jëf xeeb ko bu déwénee mu am yéene jopp loolu loolu daal moom lañ xam ci moom waa njàngat li moom moom war na ko ne ndax dañuy wax ni mag wax ni nanuy nettali jëf yu baax yi ngir ñu roy ko nettaliwuñ ko jëfam ji lu dul ñu roy ko ndax lislaam ak liimaan ak ixsaan mooy baasu lislaam te ixsaan mooy lii mooy rafetal kon Sadio ci rafetal rek la nekk ànd koog ay xaritam ak i aki bokkam way juróom wu jigéen a nga nee ay soxnaama nga nee ay mbokkama nga nee ay jarbaatama nga nee ay doomam ñëpp lay àndal université kenn desul ay camion lay gaare at mu jot lu mu jël xeeb ko day duy camion ba fees ci ay naan ci ay canette ci ay kireen ba indi facile loolu nag lañu xam ci moom te dara wëralu ko lu am ak taalibe ak bëgg sëriñam ak wan sëriñam ni ko lu ma am yaa ma ko ku bëgg sëñ Mourtala Saliou ngi nii